bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah guddik tey gi mooy ñetteelu guddi ci koor naafile gi tey doon juróom benn rakka niki démb muy ñetti selmal kon rakka bu ne fatiha benn yoon inna anzalnaahu ak xul yaa ayyuhal kaafiruuna lu ci ne ñeenti yoon juróom benn rakka la rakka bu ne fatiha benn yoon inna ansalnaahu ak xul yaa ayyuhal kaafiruuna du ci ne ñanti yoon